salaamaaleykum mbokk yi alo Allo Dakar TV man Daalu Ndakaaru maa ngi di nuyu Caaroy Yëmbal Géejawaay Pikine banlieue bi yéen ñi taximaan yeeg Njaga Njaay yi yéen ñëpp maa leen di nuyu fi ma tasee yéen kaay yi

quotidien quotidien nous def la note peu diplomate des USA les américains déplorent l'absence d'enquête sur les cas de violence Manam américains déplorent l'absence d'enquête sur le cas des viols vous ma jógee ci Sud Quotidien bi vous dem ci que je xam euh, las las nous def des pro idi annonce un gouvernement parallèle c'est une nouvelle voie du maquis Manam Pape Malik Ndour Mamadou Dione Pape Mahawa Diouf Karim Fafana ak Khafor Touré ndaw Macky yaangi nonou. Suma jige ci lolou damay da dem ci li nga xamni moy pop pop yene kay ñu def je serai m'accrocher un poste de député Madické Niang ma nga ma ngay wax de Madické Niang ngay wax nee je ne conserve mon poste de député qu'à la demande expresse de monsieur Wade Waxumako pop yene kay Madické Niang Kenya, ko wax Suma jige fofu damay da dem ci l'observateur ñu def le président poursuit ses voyages en attendant sa prestation de serment Macky en attendant balaa muy taxaw di waat ma nga ca wayaasem ya ñu daal di def ci Macky dans des airs de inquiétude boko ko xam demal ci li nga xamni moy l'observateur suma joggé ci l'observateur damay daa dem ci enquête enquête yene kay ñu def euh, le casse-tête de l'eau manam le casse-tête ndox bi am mi ngi ci biir enquête yene kay suma joggé ci enquête yene kay damay dem ci libération libération ñu def euh, exclusif correct du budget 2019 les bons comptes des finances ah ba pour le dire Amadou Ba nee les bons comptes de ministre de l'économie et finances Amadou Ba libéral yene kay moko wax suma joggé ci libération damay dem ci les échos ñu def euh, les braqueries ont emporté au total 4 475 745 francs. Hein? Sadio Mané met le monde du foot à ses pieds Sadio Mané jël na monde football kat yi fi toll ni mi ngay teul bal ba ci tankam. du samay wax les échos ko wax Suma ma ci les échos ci la source source yene ka ñu Dakar cherche 135 milliards et 135 milliards Dakar a ngi 135 milliards Baby sanctionne Bignona pour l'émergence de Sonko Madame Baby sanctionne Bignona pour l'émergence de Ousmane Sonko du samay wax la source ko wax suma ma ci la source damay dem ci direct info direct info ñu def la vérité des chiffres et des faits Manam directeur douane ma ngay raxas bopam raxasuna ba set ci ben xaritam bo xamni dal daal ku ko jege la moo raxas ki nga xamanteni moy directeur douane bo bëggee xam li ci wax demal xol direct info Suma ma direct info demay da dem suñu lamb da di bëri ji dugg ci biir arène bi xol ñu né suñu lamb motlo Ama dérange motlo il ne le kiffe pas manam ala Ama balde dal day déranger ki nga xamni ni mooy Modou Lo ba nga xamante xarañ loo kifuko, kiifu ko parcelle bi dégg naa ak Ama Baldé comme safara ak tias du samay wax lamb yene a ko wax so xolé ci lamb damay dal dem stade stade yene kay ñu def Barça Juif Liverpool et City en ah, épouvantail waaw waaw Barça ci Barça ma Juif Liverpool mec yo xamni du samay wax. stade yéen a kaay ko wax mbokk Sénégal ma wax leen yéen yaay yi yéen papa yi yéen maam yi téye leen xale yi xale yaa ngi réer démb tamit kaa am na ku ci am sa doom bu dee dem bitig ba sax topp ko ku ci am sa doom bu dee jàngi yóbbu ko di ko indiwaat temps yi xale yi manqué nañu Sénégal xale amatu fi kenn déggatul wee ñu ñaa ngi sàcc rek ba altine